nabi Mustafa mu tabbi taybatu nabi Mustafa ñu naa sëtu Cheikh Bambaani dooy Mustafa mbooloo mu ko mu siyaare Mustafa mbooloo mu ko mu siyaare Mustafa salaale rabbana ak Mustafa kele ji sunu buy siyaare kele jundaay def maare kele yaari géej leen yee gënaloo leen suñ tubaab yoneen bi jàppaloo bi jàppaloo kele Bamba xam ni ñaan ga nangu na ak yoneen bi sët ba màgg na bambaani woon borom aras nga may ma ci diine sët bu yeeseer ngërëm ma suriyatan tayyibatan tujaddidoo naa june bi ustalaat ak tayidu bamba ko wax boobee la ñaan rabbul waraa sëtam bu yeeselaat ngir mu xëral waraa buur yàlla am fa ñaan ko jox ko bamba Cheikh bamba jox koom di bàyyi ba Cheikh Bamba jokkam di bàyyi sët ba bu yàlla tàggat ñaan nga jox ko Bamba Cheikh Bamba jokkam di bàyyi ba Cheikh Moustapha signal ko Cheikh ci baatin jébal yemba Cheikh talu mi taajin li ne waram bàyyi fa daaru xuddoo di wër ba dem fugaaru wër na bilaadul mu'minin añ ma yéen ya yonent yi tuur na leen dem madinati rasulullahi siyaare taxadum abdullahi siyaare Ababakar mu doon sadiiku mi daan kuntimaa ko may rafiiku siyaare amirin muminin umara ayin bilaali ñaan fa yàlla bu sara taxa ko mun borom yonen ba kabbal askay bilisri allahu akbar bisu kerool daa dem bàqiya siyaare taabam jamiya jiitalusul ayaay mooy usmaana wasaak bi nuureyni wala maana daakidom seen mbakke balla xaw ma koy moroomam jan ay daakidom Cheikh Mbacke Balla kaw ma koy moomam siyaar na yaay ay dara ci doom Cheikh Mbacke Balla kaw ma koy moomam siyaar na yaay ay dara ci doom Cheikh Mbacke Balla kaw ma koy moomam siyaar na yaay ay dara ci doom Cheikh Mbacke Balla kaw ma koy moomam siyaar na yaay ay dara ci doomam Cheikh Mbacke Balla kaw ma koy moomam siyaar na ko fi xaatimi wa taayiri siyaare Ibrahima moo di maayri siyaare ko taybun kafaaka faatimatul yonent bi manaaka waa kasaa roqaytun wa saynabu mu dem siyaare leen lu wax ajaayibu mboole ko doomi rasululaaye góor jigéen siyaare ne walaaye wa ummatul muminina ajmain alimar laana bar xaalamin siyaare soxna Xaadim Rasuulu ak soxna jeen yonent bi maalo woolu siyaare soxna Absatu ki saynabu bagal nga nag feetal nga bool nga bisub tëram la gont bi madina fukk ak juróom ñaar la feel wasiina fim yanaala fi dilaa bi diina xutbul taajil aay fiina mboole soof bu ne ngor walaaba bi maa dimit walaaba mu tiwur ko mbooloo ma sëriñ bi ñum kanaabo mooy ngolool ma te doomi jandi liwur ma ñangoor ma ku sangi ñoor ma kenn jëm bayrut kabla naar abdul magam li yaag ñu fekk na foo fekkoon ci lu faraante ñi teeru ànd ak naar ya xayru naa si sëriñ bi soobu réew ma mi ngi waame ba naar ya naa ko si lak waami sàppal ko ci wëcc lu mel ni seetoo mbooloo mu ko gaynde faat ma jiitu benn foofu nag ما يملكا لو دولة ربي أتملى ملكا وهو الخائد جيشا وإسب جنة tey walislaamu shimaaman wa naala farda tey Cheikh Mbacké baarul ilmi ibnu xawsaan tey mooy daana sëriñam Mustafa di samdaan tey bu leen yàq sëriñ bi ko fal def ko ñiit tey bi koleer yanen muy ni yoog bamba jiit tey buur ba yal na ko may fan wu làkk téeméer amiin boolee maratan te mu may ko tey diir tey sëtu bamba duga tay dugal li na saay mukk doomi gayne bu màggee ku yër daw ba xaaba ba ba ko suñu rongoñ dama far Mustafa ngi leen tiim ca kaw عين الانتي جوف الفرد الكريم هي موسم لو مجسل يبقى مغموي مولد اندين كيبا بلن خيب دومي ام جاي كلم كلم مصطفى مولى جمعة ترنشيك naa ma tey tey jii jumaay ji muy seer. tey kuy wax na wax seer kuy joxit joxal seer. su mooy bulla. taay ba tuuba yéen ngeen wéy fa seer. tey. xam na jaatil islam koy doye mbalaa nga mu yor xam na jaatil islam koy doye dogal ba tey saani biir kàlla dundu ay xare maam ja moo jiite feex tey jibriloo mikaayilu seen may du jeex mukk ruugi maa la ko jox teg su doom yu ak baay ak kan ak bokk yeeg bajen yi wisti saayaay nee ma cat bal ma buur tabal ma la نعمتك فالمقول تظلمل الله نعمتك فالمقول تظلمل الله نعمتك فالمقول تظلمل الله نعمتك فالمقول تظلمل الله نعم جاس والمبور دوبل ملنوار أي رجع تجاري ونيو بلا قرار تي نصرعك كجو قريرك بنار جور كبرا إجل اللين سغنا نيبور تي جرين لين ونلين جتنا لين كنا فرام tey xol ya dal koo gis muy tëbal di xaaja waaye naw naka leen ngalaay Moustapha wëllëre mooy fulla kuy du moon sëriñ seex da tàkk bay ji am taxar na nga def ab gewel di way seex tey ku munta way defalas góor di may ka way seex tey al asan ñoo doonoon na bi seen maam tey wal aseynu ji yaaram teral na lislaam tey arab rafa muxtaar kunte doon maam tey seex saadu abi moom itam doon na mayal tuga kibli mi ñu daarax basiiru yanqoob tey doon na maam ibrahima am di maawob tey noonu ba taaxal ca kaw saw waram wa ba mu génn tey mu jóg waaxu ca kaw xal ya geesu ñu yéem tey buur banaa ko lu tax saw yaram la kol ba koo warul doon na maam Ibrahima sa tey doon na maam tey yaa naaru kooni bardan wa salaama yaa naaru kooni bardan wa salaama mu jibee sa waram fay na muy jungaama tey leen murit yeewu leen. nee na lu foo jët. kon yeewu leen. mustafa nee na lu foo jët. kon yeewu leen Cheikh leer gataa feeñ foo di Cheikh Mbàkke ca Tuuba yaram wa day xeeñ lu muy xeeñ bis ka ak ci ki bul fàtti bun te tey naw bun bun ay rakam da ko gat mu loobi naw sel sel ku la rejum ku la ku la bañ day bu di far xat ba far bee am gunu bismillaahi ma jóg bàkk mbër mi toog ji suur bëreeg soko dañ mbër mi jóg na daw xam ko def ma taw bi doon na baayam dama koram baam ñëwal seex sabul sang bi um nga bam bi lislaam dan nga bëri ji fi doon jëm bu yaay doonoy daam yaane mut bu sa baay noon na yaay xalifaam sey dëggoo ngi ci nu ni waaw loo waxul nu naa di kon ni yey Mustapha kurangoy mi daayam doo wéer mukk dal mu nooy maa maayatu dambool ku mu dal mu nooy mu saayatu dambool ku mu dal mu nooy Cheikh yaay béy bu kër ku la laajit naañ tooy na la tooy na foo dëgg boo fay buur